président de la république du noppi yëkkati ay instruction di ñu ko jagleel ne nañ def lépp pour que tabaski jaar ci yoon ci wàllu xar yi nga xam ne soxla nañ ko ci biir réew mi ak njëg yi nga xam ne munta ñàkk bu ko defee nag sunu wareef mooy ñu di ko prépare booy préparer mbir nag ca njëlbeen dangay xayma li nga defoon daaw ah daaw liñ doon xaar ci ay xar ci Sénégal ci marché yi tolloon na ci huit cent dix mille bi tabaski gi pare li ñu ci xayma toll na ci neuf cent mille ak lu teg muy tekki ne liñ doon xaar am nañ lu ko ëpp muy benn lim boobu ñu am gannaaw bi ñu gisee ne lii daan jóge bitim réew dafa wàññeeku ah ñu gis ne donc jàpp tënk ne fi ñu àgg Sénégal moo tax ñu àgg fa conclusion ñu ngi ci yoonu lii tubaab di wax autosuffisance en mouton de tabaski maanaam li ñuy soxla ci ay tabaski jur Sénégal daal di ko matale ci yoon woowu lañ nekk may fàttali ne euh, deux mille vingt et fukki xar yu ñu fi tabaskee juróom ñetti xar yu Sénégal lañ ñaar ñoo jóge woon bitim réew daaw fukki xar yu ñu fi tabaskee li fi jógee bitim réew manqué na ñaar donc ñu ngi ci yoon yoo xam ne mi ngi ñuy may ci li at yu néew. lépp loo xam ne soxla nañ ko ci ay xari tabaski ay xari Sénégal lay doon buñ ci jógee nag tey dañu woo acteurs yi ñu wax ñu parce que malgré objectif yooyu du ñàkk ay jafe-jafe ñoom ñu biral seeni jafe-jafe seeni jafe-jafe yooyu nag ñoom lañ bëgg nangu tey boole ko ci ñun li nga xam nañ préparé nañ ko muy plan d'action ñu waxtaane ko muy euh, jëmukaay bi nga xam ne palang bi nga xam ne tëgg nañ ko pour mu ñon ñoo yóbbu ci tabaski 2023 bu mucc ayib loolu mooy sababu ndaje bi tey